ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi euh, sëriñ Cheikh Gaynde Mbacke mi nga xam ne moo woote bis bi euh, tey ñaanal sëñ Mountakha Mbacke mu yàgg fi lool te wér di am tawféex lool ci bis bi nga xam ne dafa dëppoo ak bisu sikkar bi nga xam ne moom la sëñ Muntaxa woo murit yëpp euh, kon dañuy jël li nga xam ne mooy suñu taxawaay ci bis bi tàbbal ko ci bis boobu ndax mu yóbbaaleel na ko ñu ngi koy waajal ci bismillahi rahmaani rahim euh, di ñaan yàlla mu may ñu ñu àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin muy bis boo xam ne ñu ngi ci ànd ak euh, mbooleem daayira Nasrul Muminin bi nekk ci biir kër Serigne Cheikh Gaynde Mbacke ak daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi fii di daayira soppe yi euh, ñun ñëpp ñu ànd liggéey bi fas yéene ja ànd ak sëriñ bi ci liggéey bii nga xam ne moom la woote muy euh, sant maam Cheikh Anta Mbacke ak ñaanal ko ci yoonu tukki màkk bi nga xam ne moom la defoon ànd ko ak kilifa yi euh, mu di ko def at mu ne ba yàlla dogal euh, at mi ñu fekkee ko ñiy ñaan yàlla sëriñ bi gën koo dëgëral gën koo may kàttan gën koo may xéewal te defal ko taalibe yi nga xam ne ñoom tamit at mu ne ñooy ànd ak moom bis bi euh, loolu lañ ñëwoon nañ ko tàmbalee di ñaanal tamit ñi nga xam ne ñoo ñëw di def liggéey bi yi nga xam ne mooy liggéey bu mucc ayib muy waa Baol TV suñu borom defal leen kàttan ba fi ñu bëgg àggale seen média bi ñu mën faa àgg ñu ngi rafetlu liggéey bi bu baax a baax di tàmbali liggéey bi daal ci bismillahi rahmaani rahim di ñaan suñu borom mu àggaleel ñu ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ba liñ ci yéene lépp suñu borom defal ñu ko ñu ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér te suñu liggéey bi itam ñuy ñaan mu tàbbi ci liggéeyam bii nga xam ne moom la woote muy euh, liggéey Zikrulaah euh, bi nga xam ne moom la cërale maam Cheikh Ibrahima Fall te ku xam maam Cheikh Ibrahima Fall xam ne mook maam Cheikh Anta Mbacke seen taxawaay ci Serigne Touba benn la woon doonul woon ñaar kon dañuy jël ñaari liggéey yëpp boole ko mu doon benn yàlla nañ ko Serigne bi nangul te nangul ko mbokki taal bi yëpp te defal ñu kattan ak wér. bisimilah rahmaani rahiim. saalto bil Mustafa xayri anam taajjala la ila Daarisalaam asaluhu lahu salatan wa salam fi kulli mawdihi wa fi dar islam najaytuhu wa wan afis wa salam wa haddahani ila dar islam ijan salamatan tadumu ya salam li wa li ghiyali fi dar islam mud roqee Thiam ndongal Serigne Cheikh Gaynde Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Roqeya ibnu Cheikh Mouhamadoul Mamoun di wax ci turu daayira Nasrullah ak ahlu sikar ak daayira Nasrul Mu'minin tasawdu Chikhar ci bis bii nga xamante ni ci Darou Salam kër si Cheikh Gaynde moom muy bis bi nga xamante ni moom la maam Cheikh Anta jóge woon Makka 1929 bis boobu lay Serigne Cheikh Gaynde Mbacke mu si mud roxee di màggal fii ci Touba Darou Salaam ah, loolu moo fi waral mbooloo mi tey ñëw fi. bés bi tey ngeen def ko. maanaam euh, Gaynde Mbacke moom suñu mud roxee tey euh, waaw xam naa histoire bi ci importance rek muy jëm ji nga xamante ni moom la ñuy defal bis bi muy Cheikh Sidil Mokhtar seex Anta Borom Gawane muy tombé bi mu demee Màkka comme ni ko Mame Moussa waxee ne ko yaa fi yaa njëkk aj Màkka ci yoonu Bamba yaay sant yoo ci yoonu seex Bamba lu nekk yaa ko njëkk am ci soodaan yaay ñu musal dañu musal ci daan muy jëmm joo xamante ni dafa liggéey Serigne Touba façon liggéey bu ne ba Serigne Touba jóge fi 1927 te kenn ku ne xam na ne Serigne Touba amoon na yéene dem aji ji Makka waaye mel na ni yàlla yàlla dogalu ko woon. Euh, bi fi Serigne Touba génne 1927 ak 1928 la Serigne Gaawaan ànd ak Serigne Fallou mbake ak Serigne Serigne Mbacké Bousso El Hadj Ibrahima taalibam Ahmadou Ndiaye Diop taalibam Serigne Mayoro Fall taalibam ak délégation boo xamante ne mat na juróom ñetti fukki nit yóbbaale ay commerçant yoo xamante ni fii la leen ji am ñoo xam leen da ngeen di yóbbu ay bagage jaay ko Makka bu ngeen demee ngeen jënd bagage sa Makka indi Sénégal loolu mooy import export maam si Anta moo ko njëkk def te yoon day yoon woo xamante ni woom importance la ndax tey jii mën nañ bu fekkoon parce que des nañ ko faral di dégg ñu naan murid yi naan lu Serigne Touba mu soxlu ma tey bu fekkoon Serigne Touba jóge na fi te demul Makka ci saaxir maam Thierno Ibra Faty demul màkk ci saayir maam Cheikh Ibra Faty demul màkk ci saayir maanaam ñëpp fi bàyyi nga maam Cheikh moo moo organisé dem màkk da gis ni kon bu fekkoon mu màkk maanaam aj màkk mën naa nekk loo xamante ni mën nañ koo doyee daal ci yoon murit waaye taxawaay boobu ci maam Cheikh dafa xam dafa yóbbal Sëriñ Fallu mu doon mu ajal Sëriñ Tuubaa yóbbu Sëriñ Mbàkke Buso nga xam kenn ku ne xamoon na ko yóbbu Sëriñ Mulaay Buso mu doomi Sëriñ Mbàkke Buso yóbbu Sëriñ Alaaji Tàkko doomu maam Cheikh ak délégation mën na fukki téeméer nit juróom-ñett fukki nit maanaam loolu day wone ni maanaam dafa doon taxawaay boo xamante ni taxawaay bu rëy la ci yoon murit ndax bu dul woon ajam googu yaakaar naa mën nañoo raw lim ay nit ñu bëree bëri ci yoon murit ñoo xamante ni xay na dañ naan demuñu màkka bu ko defee kon ñii demaan màkka day mel ni kon ci génération bi suuf la waaye dem nga xam maam Santa demoon màkka maam dafa day day symboliser lu yéeme te ba mu demee màkkaat dafa def ay jaloore lu yu yéeme yéeme yéeme ndax nee na bi dem kenn ku ne dani sa kër moom bul geesu kenn ku ne sa kër dala faa bàyyi lu doy sëkk pour maanaam benn problème du mën am laata moo dem ñi nga xamante ni maanaam jege woon nañ ko boo demoon ca marché ba da gis muy lim ñii da na a kenn ñii ay téeméer ñii ay jamono boobu téeméer du bari la waaye kenn ku ne dalaa bàyyi xaalis bu bëree bëri pour li muy dikkaat pour kenn bañ am pour kenn bañ am jafe-jafe ndax bëri na sax ñoom day dem màkk di yóbbuy bor waaye moom bi muy dem màkk sax ci la lebal galanu juuf juróom fukki junni yooyu nga xamante ni moo waral problème am ak Blaise jaañ moom maam Cheikh Anta ba Blaise Diagne bi mu jugee foofu 1930 Blaise Diagne jàpp ko yóbbu ko Ségou ndax jàpp ne maam Cheikh Anta day jàppale Ngalandou Diouf fekk booba Ngalandou dafa am soxla dikk wax ko maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta jox ko xaalis nga xamante bi muy dem ak moom day joxe di joxe di maye ba ba leebalaale Ngalandou xam Ngalandou xam nitu kuñ xamoon la mooy li ko maam Moussa di wax ni yaay daa defal baadoola yeeg ñi fi buur waaw xam naa ne waaw kay taalibe bis bi am na daayira bu ko yàgg daa taxawee muy nasrullah am na benn daayira nasrul na boobu moo ëmb taalibe taalibe Serigne Cheikh Gaynde ñoom it wax dëgg yàlla Serigne Fallou wax na léegi moo doon seen jëwrin am na benn daayira bu du tasawdu seexat ñooy bula balan yi ngeen gis si biir te Serigne Omar dé jiite ko daayira nasrullah bi euh, ñoom it suñu yaay su Jóob mi di jëwrin ji euh, wax dëgg yàlla doon ci ay jàmbaar bu baax a baax a baax ñoom ñëpp di ci def seen ñaq ñëpp tax ci bis bi ba bis bi wax dëgg yàlla macha allah ñëpp sant lool tubaarkalla macha allah